waaw citoyen ci Diouf président du parti Visa les citoyens président des ambassadeurs de paix du Sénégal et coordonnateur. waaw euh, lii euh, dafay lu xam ne ne lu war la ndax euh, corona bi dañ ko war a doggali doggali ko nag mooy mu ngi yéeg di wàcc di lor am na réew yoo xam ne am na troisième vague fi yàlla bu mu fi am nit ñëpp na dañoo jàpp ne jeex na ndax chiffres yi ñuy dégg mu wàcc waaye fàttaliku leen tuuti ci ginnaaw avant deuxième vague bi wàccoon na ba ñu yaakaar ne jeex na fi ñu naan deux cas loolu. kon euh, ñun bàyyeeku bi am te bàyyeeku boobu mën na indi loraange ndax corona ci benn nit la déparé lor àdduna yàq àdduna fi mu toll nii kon dafay war a ñu yeexa ñu fàttali nit ñi que euh, wax dëgg yàlla lii war kenn warul abaisser les bras masque yi dañoo war ko ne di ko takk saxal set nag mooy di raxas loxo yi di def geste yi nga xam ne dina la may nga parce que suñu loxo yi fu ñu toll ñu ngi laal dara kon pour ñu am lu jóge ci loxo yi dugg suñu bët wala suñu gémmiñ lor ñu dafa yomb kon masque yi ñoo jiitu corona waaye comme tey corona moo tax mu siiw kon dañuy ñaax kenn ku ne euh, loolu nag tax na ñu daal di euh, nekk ci doggali ndax dañu nekkoon ci corona du jaar ci man def nañ ko ay weeri weeri weer lu jiitu loolu ñu xeex bodd gi nga xam ne moo fi amoon indoon problème ci xeex bi kon tey bu ñu demee nag ba mu agsi fii ñu bëgg nag mu bañ am troisième vague ñu nekkoon deuxième relâchement coupable waruta am loolu nag moo tax dem nañu ndar dafa ñetti fan jóge fa def Louga ñaari fan ñëw nañu fii def nañu fi ñetti fan tey jii la ñu war a pare fii door a delluwaat dem euh, la euh, du yomb mais dina yomb ñàkk yomb bi mooy ñàkk moyen waaye volonté bi moo ëpp doole donc tey ñu ngi euh, am partenariat collaboration ak service d'hygiène ndax ñooñu la ñu war a dooleel ñooñu la ñu war a jox ay moyens pour ñu mën di saxal set ndax kow xeex tilim mooy seen liggéey waaw xeex tilim nag dugg ci kër yeeg yooyu yëpp dafa war ndax de boo demee na am na liggéey bu ñu fa defoon dugg ci kër yi désinfecté def kër yi sensibiliser mais bañ fa jógee déggatoo fa benn cas léegi nag loolu nag dafa war a dafa war a sax kon loolu ñu nekk nii fu ñu ñëw boo wax nit ñi rek ne leen bañ juddoo ba tey xam nañ heure julli waaye bu jotee ñu nodd kon loolu rek ñun la ñuy def suñu wàll mooy ngeen xam na ne heure julli jot na heure julli mooy nañu doggali corona. Euh, autorité sanitaire yi. waaw autorité sanitaire yi ñu ngi félicité euh, de la santé Abdoulaye Diouf Sarr. ci liggéey bi ndax it moom mënat ci manam xëy na moom moo jur lii waaye di leen xamal na rek euh, wax dëgg yàlla léegi la ñu war a gën a taral taxawaay bi gën a mettre les moyens sur les gens qui sont sur le terrain mettre les moyens sur le service di d'hygiène mu war a doon une direction générale une direction national bu nga xamee ne dina am ay moyens continu mën di def liggéey ndax réflexe la war a doon léegi warul doon opération coup de poing mais réflexe la war a doon réflexe possibilité et on lance plaidoyer ndax service d'hygiène ñi ngi jël service yëpp ay police ay euh, eaux et forêts ñëpp a ngi am seen école ñëpp a ngi jël ay 2000 3000 personnes ñoom ñu leen di jëlal par at bu ñu ne bëgg nañu régler problème santé bi du sotti. bu baax gis nañ ci avancement ndax tey jii euh, volontaires yi ànd ak man. dañu gis liggéey bi ñu ngi gis li ñuy def ci terrain bi di ñu gis ci di ñu suivre ci whatsapp bi ak loolu ñoom ci lañ ma wax na ne bu dee da ngay ñëw bëgg nga ñu gunge la pare nañu pour gunge la am na ci dis d'école am na ci ay étudiante bon am na koo xam ne dafa bàyyi tey liggéeyam daal di ñëw ñetti fan a ngi nii samedi dimanche ba lundi dem nañu fi ba Ngaay ba Tiwaawan dem nañu fépp donc euh, avancement mi ngi am ndax xam nga boo nekkee ci mbir même bu dee benn nit nga dimbale benn nit nga sauvé rek am nga lu nga xam ne mooy résultat te wóor nañu ne li ñu touché wax dëgg yàlla li ñu distribué ci masque rek mën a jege deux cent mille masques ndax depuis deux juin ba ma génnee hôpital wér ci corona bi ba tey ah ci samay moyen bopp ci samay xarit ci nit ñu bonne volonté ñoo xam ne ne ñu ngi may gunge ak euh, quand ministère bi xam ne ne ñu ngi jàpp léegi tuuti tuuti voilà mais jàpp bi des na lool